La parole est à notre euh, merci, Monsieur le Président. Euh, bonjour, Madame la Ministre, Monsieur les ministres, maa di nuyu bu baax a baax di nuyu également les Sénégalais ak ñi ñuy seetaan. di wax aux Sénégalais que ñun on n'a pas jaloo mun dialogue nous ne et les militants de PASTEF et certains Sénégalais son toujours en prison euh, di wax ni am na une question buy tarauder les Sénégalais mooy les crimes de sang man de yooyu tax ma jóg parce que wax naa ko fi waxaat ko fi waxaat ko fi di wax ni si pupitre bi j'ai interpellé le ministre de la justice le ministre de l'intérieur di leen laaj ñoo xamante ne dañ leen jàpp ci manifestation flagrant délit lañ leen jàpp gisuñu leen ak lacrymogène gisuñu leen ak dara luy tranchant lan moo tax ñeen yi nekk fa depuis vingt et am na ñu fa nekk depuis deux mille ba léegi ñu yóbbu leen au lieu ñu yóbbu leen flagrant délit ñu jël leen déféré leen loolu yëpp laaj naa ko fi j'ai également demandé les ordres qui donnait les ordres parce que mënuma comprendre quand on a vu le préfet de Dakar di taxawaal di jaaba di wax di garsa garsa donc j'avais demandé pour constituer pour constituer pour ñu bëgg a xam parce que les sénégalais am na ay questions yoo xamante ni daf leen touché parce que comme ni ñu ko waxee y a eu des crimes de sang y a eu des morts y a des blessés di wax ni loolu yëpp yàgg naa ko fi wax et le peuple à besoin de savoir on doit édifier le peuple ñu de moom. ñun député de Yewwi Pastef bi particulièrement dañu bëgg xam situé euh, di wax ni jamono bu ma fiy demandé loolu le ministre de l'intérieur y a des des députés qui pas partie de Benno yéeg nañ fi di encourager le ministre de l'intérieur pour sa politique de répression énorme contre les fii mu am na lu ma si jaaxal quand je vois ces mêmes députés venir aujourd'hui di wax ni on doit situer les responsabilités yooyu ñoom ñoo encouragé Félix Antoine jom di ko wax ne fa nga teg sa tànk foofu la continuer la politique répressive bu ngay am nii c'est bien je ne parle pas député de Benno parce que ñoom ils sont dans le normal mais ñoo xamante ni fii la ñu toog félicité ko di ko félicité ils ont fait croire à tout le Sénégal que les Sénégalais sont violents que les Sénégalais sont des djihadistes que les Sénégalais lu ñuy def leen di toroxal ni dañ ko mérité bu ñu toog na ba tey ñu bëgg def récupération parce que ñëpp xam nañ ñan ñoo taxawoon les blessés ñëpp xam nañ ñan ñoo daan dem ci les famille des des des personne qui ont été assassinées xam nañ ko gis nañ ko donc nag nañu bàyyi démb nga wax ni premier le ministre lu ngay def nii baax na que les militants les sénégalais qui vont sur le terrain am ñoo xam ne c'était même pas des militants dañu daan taxaw dañu daan doxantu ñu jël leen foqati leen yóbbu leen pour remplir le nu mu tudd le panier à salade des am na ñoo xam ne dañoo ubbi seen portable gis fa une photo du président Ousmane ko ñu yóbbu leen et ces gens-là croupissent toujours en prison su ma sañoon ñu libéré leen bu yàgg yàgg mais il sont là-bas kon nag ñu loolu mooy suñu suñu suñu préoccupation donc nañu bàyyi loolu. di bàyyi récupération bi lu nga waxoon démb yéeg fii di féliciter Antoine Diome di ko wax ni ta politique répressive qu'elle est extraordinaire il fallait continuer il faut pas essayer de de faire croire à tout le monde que maintenant vous vous préoccupez des Sénégalais que vous vous préoccupez de de l'innocent qui est en prison on est là pour le peuple sénégalais boo tosoloo benn manteau na ko assumer encore une fois madame le ministre maa ngi insister waat les crimes de sang ñun yooyu la bëgg nga wax ñu une réponse claire et nette pour ñu mën a xam naka la ñuy taxawee di wax ni euh, honorable député rox Ndiaye mi ngi yónnee nee na am na ay prisonniers mi nga xamante ne prisonniers de Kaolack Cheikh Diouf ak Adama Niang ñoom laa jot a jàpp seen tour ils doivent être libérés parce que flagrant délit leen leen jàpp dañu nekkoon manifester yoruñu aliment yoruñu pneu ñu arrêté leen je ne citerai pas les prisonniers de Guédiawaye parce que wax naa ko fi waxaat ko fi waxaat ko fi. donc euh, fa laay daanelee di wax ni les crèmes de sang la ñu bëgg a éclairer ñu madame la ministre merci beaucoup. merci la parole est à notre collègue Woré Sarr suivi de Seydou Diouf.